30 minutes la kay ndey wàcc ci aéroport bi fekk fa mbooloo moo xam ne maanaam kenn musu ko gis yéen kaay gi nee na yi turéemi di président Macky Sall lu jëm ci wàllum tertu gi maanaam moo ko jiitee askanu Sénégal daal di génn jigéen ñi ak góor ñi mag ñi ak ndaw ñi kenn desul mbooloo mi nga xam ne ni ki démb génn ci Ndakaaru tertu ñi nga xam ne ñooy gaynde yi kenn musu ko gis waaye nag mbégte mi nga xam ne moom la gars yi àndal ni ki démb tamit ràññeeku na ñu xibaar naan ñu dalal gi nga xam ne gars yi dalal nañ ko gaynde yi ci aéroport fi nga xam ne mooy palais mbooloo mu mel ni kenn musu koo gis ci Sénégal njiitu réew mi di président Macky Sall nee na ndam lii nga xam ne gaynde yi may nañu ko réewum Sénégal askan wi yëpp ñoo ko bokk journal bi nee na loole moo tax mbooleem ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci ku jigi démb ñoo nga woon ca tertu ba ku ci mel ni Barthélémy Dias meerum Dakaaru Khalifa Ababacar Sall ak Pape Diop bu bokk gis-gis Bougane Gueye Dany Abdoul Mbaye Déthié Fall ak Serigne Mboup mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci ku jigi ñoo nga foona yéen a kaay yi démb li nga xam ne gis nañ ko ci mbooloo mu génn loole nag jaaxal na kay ndeyee askan wi ñëpp ñoo joxante loxo niki démb journal bi di Sud Quotidien nee na mbooloo mi nga xam ne moo génn ci ndakaaru jaaxal na gaay yi ndax nag aéroport ak palais lu toll si juróom-ñaari waxtu yoo xam ne cortège gaynde yi def nañ ko mbooloo mi foosaani sa bët maanaam seen leen yéen a gi di réew mi Quotidien ak direct news xëy duñu xibaar naan ñu football moo man daat nay dajale mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci ku jëkkee ka pouvoir laana yéen kaay gi ñu xëy fekk fa Déthié Fall moom tim daat nay am mbégte ci invité gi nga xam ne invité nañ leen ko daat nay wax ne Macky Sall ci boppam daat nay comprendre ne lii nag askan wi ñoo ko moom Kalidou Koulibaly nee na ñoo digoon askanu Sénégal li nga xam ne mooy coupe bi andil nañu leen coupe bi waaye nag mbir la moo xam ne yàgg nañu ko gént ci journal bi njiitu réew mi di président Macky Sall nee na tey di nag ginnaaw digg dina dalal ñi nga xam ne ñooy gaynde yi ak seen njaboot ci nag daal leen di neexal ku def lu rëy am lu rëy noonu la ko njiitu réew mi di Macky bi ñu demee ci dañoo féroce mayu ñu seen adversaire yi dara waaye nag ni ki démb ca cérémonie ba moom njiitu réew mi di Macky Sall fàttaliku na Jules François Bocandé Bruno Metsch Pape Bouba Diop Lamine Diack Mawade Wade ak douzième gaynde Guy Marius Sagna ci biir journal bi nee na gaynde yi du ab coupe rek la ñu gagné waaye nag ab fierté bu rëy la gaynde yi andi ci réew mi yéen a kaay gi di libération ñu xëy fekk fa Augustin Senghor mi nga xam ne mooy jiite fédération sénégalaise bu football daat nay wax ne nous sommes moom Augustin daat nay wax ne critique yu nekk dégg nañu ko waaye loolee lépp ñi ko doon def liñ si jublu mooy ñaax ñu ñaax googee tey résultat bi mooy andi coupe bi ci réew mi yéen kaay gi di Walf Fadjri xëy ñu xibaar naan ñu ali Cissé jamono ji jël na revanche am ci ñi nga xam ne ñoo ko doon critiquer génération 2002 am na si ñoo xam ne doon nañu ŋàññi Aliou Cissé waaye nag ñooñu ñëpp génn nañu sukk nañu caay tànkam daal di koy jéggaloo yéen kaay gi di Rewmi Quotidien njiit réew mi di président Macky Sall léegi Aliou Cissé wutal na ko tur wu bees El Tactico la ko Macky Sall tuddee nee na Aliou Cissé wax ji bëriwul du def biir yi waaye ku la Taala yéen a kaay gi di esat xëy di def bilan Aliou Cissé nee lu jëm ci wàllum Coupe d'Afrique yi Aliou Cissé def am na ci onze victoire cinq nul la ñaari défaite laas yéen a nee na la nation reconnaissante yéen a kaay gi di Vox Populi nee na du jamais vu li nga xam ne gis nañu ko ak double XL la yéen a kaay gi di Libération nee na nag am na lu toll si ñent ñoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan ci ay accident bi ñuy tertu gaynde yi diggante ngenge neew ayra law ak daara yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien nee na gën gaa gàtt lu toll si juróom-ñett nit ñàkk nañu ci seen bakkan